xew yu tiis yoo xam ne am na ci Sénégal muy ay doomu Sénégal yoo xam ne dañu jaar ci ay gaal euh, ba doon jéem a dem bitim réew ba faf euh, ci géej gi ñu ñàkk fa seen bakkan may wax ne ñooñu toll nañ fi ci fukk ak juróom-benn tey ci li nga xam ne moom lañ gis démb ca ca ca Wakaam ndaxte ci bi ñu xëyee dañoo gis ci plage Wakaam ay bakkan yu yu yu forot Euh, fukk ak juróom benn ak ñett ñoo xam ne ñoom rëcc nañ ci yàlla defal na leen musal na leen ba euh, ñàkkuñu ci seen bakkan may wax nag ne ñàkkul njuumte am na ci média yu bari tey ndax ndaxte démb dafa mel ni dañu wax ne fukk ak juróom ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan démb ak tey mais li ñu jàpp te loolu tamit lu bëri day am dinaa ko waxaat léegi euh, fukk ak juróom fukk ak juróom la woon démb tey ci suba mu am bakkan bu bees boo xamante ne euh, tamit euh, for nañ ko ci booru géej gi donc boo ko jàppee mu fi ko juróom-benn ak ñett ñoo xamante ne ñoom gis nañ leen yàlla musal na leen ba dara dal leen lu tax may wax lii nag c'est parce que dafa bëri souvent bu événement amee ñu ñu joxe ay chiffres diw ne chiffre bi moo am chiffre bi moo am mais état mënul joxe du dul li nga xamante ne moom lañ constaté ci événement yi fi amoon juin doon nañ wax oui état bi 16 la wax ñële wax nañ vingt et nangam ak nangam may fàttali ne état ci responsabilité lay dox. bu fekkee dafa am euh, ay mort yoo xam ne dañ ko constaté sur le terrain ñu xam ne lii xew-xew bi moo ko andi buñ demee ñu constaté ko def ko ci PV bu fekkee nag dañoo andi nit xamuñu fan la jóge tant que enquête bi tant que procureur deful enquête waxuñu ne nangama ko andi amuñu droit def ko ci PV loolu moo tax ñuy leeral lu mel nii may joxe exemple rek wax naa ko fan yële bi accident boobu amee ci Kaffrine euh, ci Sikilo bi ñu defee relever bi nangam lañ gis bi ñu demee ci hôpital mu am ñaar yu ci yokk bu ñu defee enquête li ñu seetlu mooy ñaar yi ñu ci yokk ay bakkan la yoo xamante ne mort naturelle la boo xam ne accident andiwu ko waaye dañ nekkoon ci morgue bi kese donc loolu moo tax bu xewee dañuy vérifier laaj gouverneur laaj préfet laaj directeur hôpital bu ko defee ñoom ñëpp ñu d'accord ne lii lañ fi andi loo xam ne ci xew-xew boobu la jógee moo tax ñuy def leeral bi leneen tamit wax nañ ko ne dafa am am na ku seede ci benn média ne. Euh, dafa li nga xam ne moo xew muy euh, gaal boobu nga xam ne dafa suux li ko indi mooy euh, vedette maanaam gaal yu mag yi nga xamante ne moom la armée sénégalaise di utiliser moo leen bëgg loolu tamit defe naa ne njuumte la njuumte la loolu amul ndaxte fi mu xewee xootul xóotaay bu war a tax bato mën fa dem waaw bato balaa muy mën a àgg fenn fi day fekk xóotaay bi da ngeen dégg ñu naan 10 mètres de tirant d'eau 15 mètres de tirant d'eau am na fu gaal mën a egg waaye bato mënu faa egg looloo tax bato yi boo leen gisee faaw mu am quai ndox mi sori ñu mën a am fu ñu leen di teg loolu tamit tax na démb bi ministre de l'intérieur demee ci biir euh, géej gi ànd ak armée fi mbir mi xewee sax mënu fa àgg ndaxte bato yi mënuñu fa àgg dafa taxaw rek ñu joxoñ ko ne ko fële la ndax mu mën a xam fan la bu dul loolu loolu nga xam ne mooy gaal yi ñuy defaree pneu nga xam ne Zodiac lañ koy moom la ñuy jël ngir mën a dem foofu ndaxte moo gaal yi ñoo tolloo à peu près fi nga xam ne bu ko deful rek suuf si da koy téye te euh, bu boobaa loolu du ci mën a am donc état du Sénégal mi ngi euh, mi ngi jaale ñi nga xamante ne ñooy mbokk yi ñi génn àdduna euh, di leen massawu te taxaw bi ci war état du Sénégal dina ko def ni ko daan defee président de la république nag yabal na ministre Annette Seck mi nga xam ne moom moo yor doo moom lañ dénk doomu Sénégal yi dund bitim réew mi nga xam ne moom lañ taftale ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur xëy na tey ci suba ci 7 heures du matin dem Dakhla ànd ak avion militaire li ko waral mooy dafa war a jëli juróom fukki doomi Sénégal yi nga xam ne foofu ci centre yi lañ leen euh, lañ leen lañ suñu mbokku marocain yi dalal ngir euh, toppatoo leen indiwaat leen fii ci réew mi juróom fukki yooyu nag dafa fekk ne seen wér-gu-yaram xaw na euh, tàggatémbe ba tax ñu ñu ñu organiser loolu ngir mën leen jëli ñeneen ñi. toll nañ ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett 428 yoo xam ne ñoom ci ay bus la ñuy jaar ànd ak euh, ñi nga xamante ne mooy service su Sénégal ak yu Maroc yi ñu ànd leen ba fii jàppale leen toppatoo leen ba ñu mën a àgg ci seen dëkk ak fa ñu dëkk. ci xibaar yooyu tamit nga xam ne yenn saa yi njuumte da ciy am ndaxte ma ne yàqu moo ko jublu wala wax naka su dul noonu wax nañ ñu fi fan yële ne am na ñetti téeméeri doomi Sénégal yoo xamante ne. dañu ñàkk seen bakkan ci géej gi maanaam seen gaal dafa suux ci mbëkk bu ñu doon mbëkk di dem bitim réew loolu tamit amul ndaxte ba léegi constaté wuñ ko ñi nga xamante ne mooy suñu naataangoo yi ne bitim réew ministère yi yor mbiru sécurité mbiru santé mbiru émigration ci dëkk yi nga xam ne moom moo ñuy wër moo xam Mauritanie la moo xam cap la moo xam Espagne la moo xam Maroc la waxuñu ñu ko donc ñun constaté wuñ ko ñoom it constaté wuñ ko li nga xam ne moo am. mooy ay sénégalais yoo xamante ne dañ leen fekk ci ay gaal ñuy jéem a mbëkk dem ci feneen ñu téye leen ngir ndax lu ñuy tere la yóbbu leen ci ay camp dalal leen fa woo gouvernement Sénégal consulu Dakhla bi nga xamante ne moo nekk diggante Sénégal euh, moo nekk foofu ci gox boobu mu dem toppatoo leen xool kay seen i kayit seet ndax ay sénégalais lañ informer gouvernement du Sénégal loolu ñu def nag bi ñu ko defee li mu jur mooy li ma leen wax sànq. 478 maanaam ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne gis nañ leen juróom fukki yi euh, ñoom la seen wér-gu-yaram xawuta demee noonu ñoom dinañ leen def ci avion militaire ànd ak ministre bi ñu àndi leen ñeneen ñi mooy ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett yi ñoom euh, ay bus dinañ leen andi ñoom amuñu benn problème de santé ñu toppatoo leen yóbbu leen ba Ndar ku ci ne ñu jàppale la yóbbu la ba fi nga dëkk loolu moom mooy li nga xam ne euh, moom moo am